ba tey ci seen scandale du jour eh, président Diomaye ñu dem déglu président Diomaye muus Diomaye ah Diomaye lii kontaan naa ci ay man suñu président ay ñun ñoo yéex am président bu mel ni Diomaye nag si ñu dem déglu Diomaye ah ñu dégg ne am na yoo xamante ni président wàññi na ko ndax mun na noo xam yi nga jot wàññi ak ñaata nga si wàññi. waaw merci beaucoup ci question boobu. Mm-hmm. vraiment question bu am solo la. Mm-hmm. Euh, li nga xam ne jot nañ ko wàññi ñu ngi ci nekk nii di ko wàññi. Mm-hmm. muy dank daxaar sunguf meew. Uh-huh. waaw. tol. tol si demmali aussi. ah tol jotoon naa yokk. tol jotoon na yokku. ñun taxaw nañu pour wàññi ko. ceeb bi la ñuy wax de. xale yi nee nañ ñoom léegi seen papa yi joxatuñ leen seeri Dia moo tax solom bi dañ ko wàññi. Ah. solom bi hmm. wàññi nañ si mali hmm. wàññi nañ Uraaj. wàññi nañ aussi li nga xam ne mooy pëndax meew bi. pëndax buy bi. pëndax buy aussi wàññi nañ ko. Uraaj mooy lan. Hmm. ak ñuule aussi. ñuule am ah, ok. ñuule wàññi nañ ko mais kon konkorong moom mu ngi fu mu ba tey. non konkorong mu ngi palaasam ba léegi. xam naa Sonko dama lay jox papier yi nga xam ne. waaw boo ko léegi seen jot a wàññi. merci son excellence président Diomaye Diakhar Faye njaak ñu ngi leen di nuyuat bu baax hmm, di nuyuat général Kayré sama artiste hmm. président Macron la ñëk wañi <laughs> macron bokku na ci liñ wañi hmm. ah, waaw macaroni dama ko faté ah, wa dama ko faté ciép bokku na ci liñ wañi <laughs> li nga xam moy mburu da ko fonk lol te da ko bëgg faga daga mom la ñëk wañi mburu mu bees tim wañi nako <laughs> kii nii fii président mboroxe nga bind wala poroxe euh, fii mboroxe laa wax waaw mboroxe mboroxe kii bi ñaata la doon jaar palaat mburaake mburaake mboroxe mboroxe mboroxe laa bind waaw dama mburu mboroxe nga bundi mbur <laughs> dakk dakar sunguf meew <laughs> président Diomaye nee na wàññi na dakar ak sunguf meew <laughs> ay yéen yàlla fuñ jëm sonko yow sonko liiral lii bu baax ah nee na macaroni bi da ko <laughs> non non lii lii lii lii mën na ma rey barki yonent bi non cukkudu nit barki yonent bi eh, ay jomay jomay foo foo jaa wax waxu macaroni eh, am naa ñuy voyagé di dootoo dem sonn ndax sarite métteetul wàññi na jomaay wàññi na séeréer yi nag kontaan nañ si yàlla baax na